auzu billahi min asheytaani irajim bismillahi irrahmaani irrahim wasalallaahu ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman nakk biram tuwa maa ngi bàkkati man ka ma doy ka duy ba ma fees maa ko gëm maa ngi bàkkati man ka ma doy ka duy ba ma fees maa ko gëm ka def lu fi kenn deful ka buur bi ko moom joxi ndam ka fi kenn xamuloon lu mu doon ka fi yem ña fi woon ci ngëmëm xaadimal Mustafa ma fi ñëw jëfilal yàlla rekk a ko xam liggéeyal Moustapha ak boroom diine jég loo fi gis lu fi am sant rekk kanu war ci lu wër yaa nu def ni nu mel noo la gëm yaa fi ñëw yee laat diine ji yaa nu won yàlla ak yonenam yaa nu yéem yaa nu doy yaa nu saf sunu xol yaa ko fees yaa lam ku la am rekk am li fi gën yaa di sun lampi xol dul gëlëm yàlla buur moo la def nii nga mel moo la fay moo la jox li nga am yaa fi jaay sa bakkan diine diine ji far ko jaay lépp loo mës a am ba fi nit ñi baxee diine ji yaa ko fat ba mu mel ni ngalam bind ay téere yu yeesalaat li fi mag ñi ba woon ba ñu xam mësuloo tay yow benn yoon ci defar ña ba ñu gëm samp ay daara yooyu kuñ jofal fu mu dem di fa weerub lëndëm képp kuy jaamu tey war na la sant ndem am na ngor xalam yàlla bal yàlla yow sa bakkan boole koog sa njaboot ga nga am li nga teg sa bakkan kenn gisul ñafi woon ku ko teg bakkanam ba fi ñëpp dawee yaa taxaw yaa waral nasaraan yi weedam lañ ne woon du fi am di ko xeex yaa ne woon dana sax dana am takku sànj ca jéewal rëy booba lañ xam ne yow doo moroom bañ ne rës ci sa kaw biro ndar daanu nañ maqu suuf nga xëlëm ku la bañ rek a bon ku la bañ rek a soof ku la bañ moo gëlëm ab julit du la bañ du la cof ngir sa jëf yi sax ku ko am yaa nu jox jàmm ji ba nu tal jàmm yàlla bu wër yaa di ndam nga ngëneel day nuroog ab jaget ci njariñ ak matal ak matam yaa defar Ibra Fall yaa defar sunu maam Cerno mbër mënu xam yaa joxoon seexi anta sa mbir boole kook ay dërëm ak ngërëm ya joxoon seexi anta sa mbir boole kook ay dërëm ak ngërëm borom jennek la gan yaa ko duy joxol lo raw na xel muy xalam ku fi Seex Fallu ak Mustafa di sa doom doo morom nanu xam koo fi gis nangulul Bamba mi xolam moo gumba gët yi lëndëm képp kuy bañ a gis li nga def baya boo séentu ay naqaram nun de moom noo ngi bég tey damoo lii la bur yàlla jox mu di ndam yaa sigil nit ku ñuul ci sa jëf yaa goreel réew mi yëpp ci sa jom yaa janoog nasaraan yi fi woon bëgg a def réew mi bu ñu amu gëm yaa ko bañ di jeexaat ba defar réew mi yëpp ci sa gëm ak a xam sa tukkib géej gi ak la fa xew ci na toog metti raw na xalam waaye mu nga ko yow saalitu yaa di góor yaa di mbër jaaraama seexu naa xubbu naa xawsu naa xaysu naa xibbu naa noo ko gëm sawtu naa nuuru naa nasru naa jaaru naa jàmm naa nan ko xam kullu naa kanzu naa xillu naa saafi un mursidun masa am siruna sarana babuna lil ilahil wara dun gëlëm sa saa dana saa moo nu won yoon wu baax wi nu xam bëgg seex Bamba ndem wéru na moo dàq loo mën a gis neel na xam gaa yi fii kontur ak ñaawi waax di baw ak xiiru ñoo ñàkk jom jëmmi seex Bamba jiikum saful ba nga jóg di fi xeex ay mbiram yaa ko tey kii du seen mappandoo du morom te du seen maas itam yàlla jox na la xol yi fobal ñot leen yóbbu leen ca kanam fi nga jaar nit ku ñuul ak ku weex du fa jaar du fa romb ndaxam géej ti si nga xuus ku ko xuus taqabante doo am li nga am fit wu rëy wi fi yow ak dëggal nga rawee ña fi woon di xalam mbiri Seex Bamba wax du ko fay ëf du fay jant cuuj du gileem yaa fi raw yaa fi gën yaa fi mën yaa di mir yaa di saan wanu jam noo ngi gor fi sa ron na nga yiir sunu ayib yi fi nun jox nu jom yaa nu doy sunu mbir yaa ko yor jox nu yow sa cofeel ak ngërëm yaa nu doy sunu mbir yaa ko yor jox nu yow sa cofeel ak ngërëm maa ngi farxat mu fii sama ngir ne géej du fi jeex ci dëtam maa ngi farxat mu fii sama way ngir ne géej du fi jeex ci dëtam subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin